ci jàmm. dara jotul moom mooy tabaar fakal li mu wax bàjj bisu sànq rek. waaw jàmm moom. Mm-hmm. lépp ca la lépp xëy. Mm-hmm. jàmm moo waral lii de yàlla <laughs> na jàmm yàgg. ay am nga ni daal xam naa ne. Ah, jàmm dafa am solo de. Mm-hmm. amul njëg. waaw amul njëg de. moo tax euh, euh, loo ci waaye mën a def ba suuxat ko. te ci na jàpp. waaw parce que wolof dañuy faral di wax naan. Mm. fu jàmm yendu fanaan fa mm-hmm. nit xam na fa la mu waxut la mu waxut te bu ko waxoon. waaw amaa na ñàkk jàmm jàmm mën na faa. mën na faa mën na faa mën na faa gàddaay. yenn saa nga fekkee jotaay. moo tax maandu da cee baax. Euh, jotaay ga mm-hmm. am na kàddu yoo xam bu fa jibee. Mm-hmm. mun naa jur fit. mun naa jur moo tax nga noppi. te góor gaa koy toogaale. Mm-hmm. ngir jàmmal ak bëgg a jàmm. c'est ça le problème tax na garabu jàmm daal ci waxtu wi le kenn ku ne war nga koo mun a jëmbat sa kër. loo yaa war a wax. bu mu la tax a wax loo xam ne ni bu ëllëgee mën nga taal réew. waaw waaw waaw te lépp moo waxu. <laughs> waaye te du lu nekk li war a wax. waaw ah oui moo tax daal nu ñu fexe daal am na si solo ba jàmm am jërëjëf que ñàkk jàmm tax na tey ji tabaski mm-hmm. eh, daanaka fukki fan ak juróom daanaka moo ci des waaw wala lu ko ëpp tuuti waaw yegg si na Sénégal yi nekkuñ ci fête waaw nekkul ci fête mm-hmm. loolu ba léegi yéeg agoo ñëw sax euh, ah non non harmonie Sénégalais kenn nekkul ci fête tabaski amuñu fête tabaski ba léegi daanaka boo demee ci marché yi sax loole feeñagul amu ci amu ci mm-hmm. feeñagul te lépp nag ñàkk jàmm rek moo ko waral ñàkk jàmm kon yal na yàlla may jàmm amin amin waay kilifa gi eh, mooy lépp amin waay am na ci solo ba mhm. léegi nag eh, auditeurs yi amaguñu jàmm téléspectateurs yi ndax Walf TV mi tàkkagul ba ba léegi njaw a ngi wéy di desi xambin mhm. Mhm. waaw njaw a ngi wéy di desi xambin ah. <laughs> eh, waaye aussi Abdoulaye gis nga des fois aussi ni dina jël benn décision yaakaar ne daf lay daf lay xeex te fekk ndeysaan la mu lay defal daanaka ngëneel lay doon ci yow gis nga décision bi nga xam ne nii buuru jël na ko parce que Sénégal léegi buur a fi am euh, jël na ko kon daal di tëj signal Walf TV euh, daf ñoo permetre ñu xam wala ñu def ñun suñu sondage bopp parce que en boo xoolee ba xool groupe de presse yi fi nekk yëpp en général seen fond sondage dañ koy santaane dañ koy santaaneel seen bopp waaw waaw léegi da toog ba jàpp ne yow fu mu toll nii sa marché publicitaire demetul noonu nga ne xaaral ma santaane sondage mhm. su ko defee ma fexe ma jiitu doon gaa yi noonu la ñuy defee seen sondage doon pay <laughs> waaye li nga xam ne yi mu ngi koy juru tey tax na ñun ñu def benn sondage jëmale ko ci Walfadjri fan la toll ci askan wi mhm. waay mais boo gisee askan jamono ji ñuy réagir mhm. ak na ñuy jëlee seen alal di ko indi ci kër gi di ko jàppale groupe presse bi da ngay am mbégte tout à fait wane ne yi euh, fa mu nekkoon. Mhm. ba tey jógu fa benn yoon. jógul ci xol yi. te loolu rek. Mhm. mbëgte la. waaw couper ko ci xol yi sax. moo tax damay faral di wax ne effectivement comme fa laa bëggoon ñëw. Mhm. Walfadjri mën ngaa couper signalam. <laughs> waaw waaw mais pour nga couper si xol. ci yi ko ci xol yi. waaw dafay dafay poser problème. jafe day jafe. xam nga. <laughs> Euh, gis nga gis nga wolof. lépp lu mu léebu jàpp ko. waaw wolof yi dañu ne. kuy tëru kuy tegee ko të. xam nga tey ji tëj nañ suñu groupe si suñu signal si suñu signal mhm. ñu ne déetewaay ñu bloqué suñu compte Wave bi waaw te lañ ci jub du leen lu mooy bu weer deewee Abdoulaye bopp du fayee ko man du ma fayee ko donte plus que ñoom li ñu nekk ay per de famille ñun noonu lañ nekk ay père de famille ci lu ñu teru ñu mhm. teggi mhm, teggi gi ñu teggi tey tax na lañ ñu doon bañal tey ji ñu ngi koy am te mënuñu ci dara nit ñaa ngi baw a fu gis nga Abdoulaye damay fay wax ne suul ker waaw du ko <laughs> <laughs> bu yeboo rek ñu noppalu waaw te te lii nag Seydina ah. day day dëggal day dëggal ndenkaane El Hadji Sidi Lamine Niass ndax waxoon nañ ne jàpp leen ne duma seen patron askan wi mooy seen patron bu fekkoon ne lii am na askan wi du mooy wal fajri su ko defee eh, la mu waxoon eh, dénkoon ñu ko jëfeewuñ ko bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma ñemewuloon bàkkaar mhm. kon naa na wax ne moom wàlliw la ah, parce que lépp loo xam ne waxoon na ko fi bàyyi fi daanaka mhm, moom la dund jamono ji tey tëggat waaw tey ji discours bi nga xam ne waxoon na ko ne ña ngeen jàpp ne yéen peuple bi mooy seen ah, mooy seen mooy boo fayee ko weer wi mhm. peuple bi moo lay fay te wal a jaral kon sax dikk moom waxam mhm. fois dafay dafay dafay wax loo xam ne yegg seegul dafa ne peuple bi peuple bi mooy seen patron way kon tey jii bu ñu demee ba nga xam ne weer dee na tey bu ñu waree fayee yow mhm. parce que tabaski na mhm. da lay wóor ne yow am woon yàqi na mhm. wala am woon xiini miin sax ndax jii am yaakaar ne peut dafa am na ci solo way te a garaaw aussi Sidi Lamine Niass li lépp loo xam ne ni Sidi Lamine na ko ci nguur gi fi nekk ni que démb la ko waxoon moo tax bu ma bañul woon damay naan wàlliw la waaw te te léegi nag fan di jot boo amee sax ñu tegal ko askan wi yooyu de ci xam nga dundaat ay kàddu xam nga démocratie dafa baax ci réew waaw mooy mooy fondement gis nga dañu demoon ba Sénégal vitrine la woon ci wàllu démocratie tout à fait ñu dem ba ay Guinée Bissau dañu rey ci démocratie naw ko fépp naw ko fépp Sénégal ñu dem ba Cap Vert mhm. rey ñu si wàllu démocratie mhm. Afrique ba Afrique gaj di ñu ci wàllu démocratie mhm. mais tey ji dem nañ ba finalement léegi ñoo nekk ndadde ci wàllu démocratie dama lay jox exemple mm-hmm. ci élection législative yi nga xam ne waa Guinée Bissau doo nañ ko organiser barki démb opposition bi ñoom ñoo jël majorité bi mm-hmm. ci assemblée nationale Umaro mm-hmm. Sissoco Embalo dafa woo opposition bi remercier leen ne leen poste premier ministre yéen laa koy jox waaw ci lu wér loolu du exemple démocratie jàmm na ñooy waaw nga dem Cap Vert fii nga xam ne ni ñoom ci ñu lañ doon roy démocratie dañuy def seen élection bu mu jeex doo dégg bal tàkk sagar xeeñ président ba fa nekk jëm fa nekk sax di sélectionner kan mu war a nekk candidat ak kan mu jëm fa nekk sax di jéem a tëj ay médias privés parce que dafa jàpp ne dëkk démocratie la te démocratie dafa ànd ak liberté d'expression mais bu ñu demee ba nga xam ne nii mhm. boo seetaanee France 24 seetaan TV5 seetaan yenn télévision yi nga xam ñu ngi nekk à l'étranger di wax ne ne c'est la première fois mhm. c'est la première fois ba àdduna doone àdduna ba tey ba presse tàmbalee am ba tey. c'est la première fois ñu jàpp ab groupe de presse. ñu tëj ko lu toll ci juróom benn benn weer. benn weer c'est la première fois. Mhm, ci taarix. c'est la première fois ci taarix amul am. Mhm. c'est la première fois te ci groupe Walfadjri lañ ko def. Mhm. moo tax may rafetlu. waaw taxawaay waa Reporters sans frontières. ñoom euh, fippu nañu. par rapport. ak mhm. communiqué bi nga xam ne ni becc nañu ko dénoncé nañu mhm. Mhm. lii dafay wane ne ci wàllu liberté de la presse Sénégal régressé woon na ci waaye dafay gën a euh, gën a gën a gën a régressé dañ cee gën a tumuranke te question bi ñuy laaj lan moo tax ñun ñu singali ñu wax nañ ko waxati ko fi laaj dëggu samp wax nañ ko dëggu samp lu tax lu tax daal euh, yëf yi bu ñëwee daal euh, ci groupe Walfadjri rek nañ ñu bàyyi ñu nooy <laughs> nañu bàyyi ñu nooyu quoi nañu bàyyi ñu liggéey mm-hmm. parce que ñun kese nekk ñu fi Walfadjri mm-hmm. nekk ñu fi ay journalistes aussi mm-hmm. nekk ñu fi télévision bu fekkente ne li ñuy li ñuy wane leen mais dem leen zappé xool yeneen télévision yi c'est la démocratie quand mais bu ñu waxee nga naan ab woone looy wone mais Walf lu mu leen di woon sax moo war a doon saafara ma ne ma ne lan la ñuy wone loo xam yeneen télévision yi wone wuñ ko et li gën a garaaw wax naa naa ko tey jii bu fekkente ni dañuy lim dañuy roy tey parce que ñun lépp lu ñu lépp lu ñu am tey muy suñu constitution muy suñu institution yi ni muy doxee dañ ko coupé collé maanaam France dañ ko coupé daal ko indi fi imposé ko Sénégalais yi fi ne mm-hmm. mais France googu lee barki Demba Ndiaye ba ay manifesté amee gars yi réclamé seen retraité bi mm-hmm. mais gis nga ay manifestant dañuy jàpp ay ay ay ay mais di leen dóor France 24 wane ko TV cinq wane ko mm-hmm. mais lan moo tax télévision yi la censure wuñu parce que foofu am na liberté d'expression foofu am na liberté de la presse ah. foofu am na démocratie am na démocratie mais ñu Walf lan la ñuy def ak lan la wone li war a tax ñun ñu ni tëj ñun mm-hmm. te la ñu doon wone yeneen télévision yi ngi koy wone c'est parce que tout simplement Walf amatul ndey mm-hmm. bon amatul ndey nag amatoo baay waaw parce que naa naa jox benn affaire de mm-hmm. gis nga dëkk bii tey dañ nekk ci dëkk boo xam ne ni tey bu ñu amul kuñ lay ragale amul kuñ lay rusé yaa dégg dañ lay nappaaje mais heureusement amatuñu bàyyi certes mm-hmm. waaye am nañu ndey. waaw ndey mi kay mooy la population. mais mais ñaar yi sax am nañ ko. mooy mooy askan wi. waaw mooy la mooy la ba tax na Walf du doon. jirim mooy euh, askan wi. mooy la population. mangook mooy la population. waaw da ci am solo mais en tout cas man dama am mbégte mhm. ci ci ci ci askan wi. dama démb damay wàcc dajak benn moto càq-càq mu wàcc. Mhm, mhm. mu ne ma de man de maa ngi jóge Thiès. ci àll Thiès ba. sama benn njaati gi daal moo ma yónni. ne ma daal journaux yi nga xam ne Walf mu ngi koy jaay naa ko si jëndal quinze mille indi daal ko ko fa. indi ko fi waaw. mu ne Basiirou yóbbu ko ci biir. waaw mu euh, dugg. xool rek ci àll Thiès te am na sax ku ma wax ne am na ku jógee dem bu Kolda am na ku jógee Bakel am na jógee Bakel ñëw dugal ci kees gi ñëw dugal kees dem seen yoon wal fajiri wal fajiri bindoo noonu démb dama ca dama toog ba ci kaw jàkk ci toog ci kaw mhm. gis benn waaye génne ci poosam xam naa daal ëpp lu bari na moom mhm. ma gis ko muy dugal muy rokkos ci kes gi rek muy rokkos ci kees gi rek mhm. ndeysaan di solo. loolu tax euh, sa sa moo tax mbégte la waaye sa liggéeyal liggéeyal askan wi dafa am solo am gën a jegewaat askan wi ah, jox leen. kàddu liggéeyal askan wi. Mm-hmm. dafa am solo. Euh, moo tax aussi may woo. Mm-hmm. Euh, taskati xibaar yi fi ne. wala lenn ci ay chroniqueurs yi fi ne te ñu leen di dëkkal. Mm-hmm. parce que man des fois du bëgg di attaquer samay confrères parce que ñoo bokk benn kër. waaw waaw mais. des fois da ngay jékki-jékki dégg ñu naan diw kat diw lay liggéeyal. Mm-hmm. wala reporter bi kat Ousmane Sonko la fi nekkal. Mm-hmm. wala chroniqueur bi kat Macky Sall la fi nekkal. Mm-hmm. ñu dem bay dëkkale leen comme ñoom ay journaliste politique ay journaliste politicien dama ne képp koo xam ne ab taskatu xibaar nga nekk fii ci Walf Fadjri dama koy wax parce que si réseaux sociaux yi la dama su ma wax la man maa ko man la engagé man ñu ngi lay teewlu man la engagé képp koo xam da nga nekk fii ci Walf Fadjri ñu lay dëkka ne ab pro Sonko nga wala ñu lay dëkka ne ab pro Macky nga jàppal ne sa place du ci Walfadjri waaw war waroo féete fenn ci askan nga war a féete parce que lii may wax nii boo gisee ma am fit wax ko c'est parce que ki nga xam ne moo di borom kër gi yàgg naa toog ak moom ay réunion mm-hmm. Sidi Lamine mm-hmm. musuma ko gis ci wax làmmiñam musu ko gis ci taxawaayam ñu naan ko moom pro Massamba la wala pro Mademba la musul am askan wi la fee kon képp koo xam ne yaa ngi ci groupe de presse bi dafa liggéey di ab journaliste wala nga loo mënti doon mm-hmm. bu ñu demee ba naan la pro nga rek c'est parce que amatoo place fii ci groupe Walfadjri mm-hmm. ñu nekk ñu fi pro Massamba nekk ñu fi pro Mademba mm-hmm. ñun pro askan wi lañu te da ñàkk fayda sax weesuwul <laughs> ñàkk fayda nag weesuwul da ngay jàng politicien baa nga këram di jàng xamuñ naka nga def ba nga fay sa njàng ba nga doon ab di ba nga diplômé mhm. taxaw ci télé ak rajo ngay nangu ab politicien toog këram di la wax loo mhm. ñàkk fay da weesu lu ni mel man Seydina Omar wala man Ablaye Bob mhm. politicien amul fit woo ma téléphone naan ma kat damaa bëgg nga wax ma lii wala nga defal ma lii boo ko waxee nga. walaay <laughs> walaay uy. <laughs> looloo tax Sidi Lamine def ñu doon. dënk xam nga. ne ne waru leen euh, leble ci seen kaddu. c' waru leen ci fay bor. c' ci discours am fa lañ doon fa lañ doon des fois da ngay dégg discours boobu di ko wax. dikk ko wax di ko wax pour xamal leen ne fii ah, Walfadjri amu fi pro. Hmm. képp ku fi nekk pro jàppal ne yow amu place fii ci groupe Walfadjri te bu ma nekkoon kilifa man ci kër gi. <laughs> ñu ne ma diw pro la bu ma enquêté ne pro nga ma dàq la jërëjëf Seydina xam nga tax ah. parce que fii nekkuñu fi pour pro. ñun dañ fee nekkal pour askan wi. baatu askan te balaa ñoo xam ne Walfadjri askan wi fi nekkal Ousmane Sonko bi ñuy moomale tey mu nekk président de la République. Hmm. une semaine lañ ko may wala deux semaines lañ ko may taxawaay bi président Macky Sall am mu am ko ci groupe Walfadjri parce que ñun suñu ligne éditoriale duñ ko soppi. Ah, du soppeeku du soppeeku jërëjëf. ñun nous sommes ah, waaw El Hadj Sidi. dañoo dund ak moom. na lu mu def ci ñun waaye surtout ça. Hmm. il faut gars yi xam loolu. c'est que il faut que gars yi ba ba may seetaan Walfadjri mm-hmm. xel xalaatul woon ci àdduna mm-hmm. Mm-hmm. wasu musulmaa woon naa ne ndox ne bés dina ñëw dinaa liggéey Walfadjri mais dama doon am fierté di déglu Walfadjri dama doon am fierté di seetaan Sidi Lamine Niass parce que man idole laa ko defoon boobu nag nekk gu ma sax Walfadjri xalaatuma ko woon sax boobu maa ngi jàng xam nga mu daw parce que constance am surtout ça ak dignité man loolu moo may bàyyi ci nit. surtout ça. gis nga boo amee constance. am dignité am looy bañ. man loolu moo may bàyyi ci nit. mais guufalal say lex. <laughs> xoolal demal guufal say lex. wala ngay sol sa costume di gaare say katkat. loolu lu ma xam lu muy gal man say naawat la. Mm-hmm. mooy dignité. constance am na ci solo jërëjëf ak dekk bañkat. man loolu moom moo ma bàyyi woon ci Sidi Lamine Niass moo tax bu ma ñëwaatee ci groupe Walfadjri dama ne yàlla lépp loo ñaan rek. Mm-hmm. yàlla defal la ko. de la koy xàllal jërëjëf Seydina Omar Ba xam naa ñu ngi kor euh, xiir gi ba ba léegi euh, waxtu yi xoj nañu ñu ñu ñu tàggoo sey Omar Ba. waaw di sant gërëm ñëpp ah. jërëjëf. <laughs> lépp lu ñu fi wax bu déggee rek nañu si jégal. amiin amiin euh, te xam ne dafa rek boo ñu taxaw di jug ah. wax dëgg yàlla di woo rafetlu askan wi seen taxawaay. kontaan naa ci ñoom trop trop. waaw muy politicien di acteur société civile. di askan wi nga xam moo nekk fële ci Fongolémi ca Daara Jolof. ca kaw ca Kawga. ñëpp daal bàyyi wuñu kenn kenn kenn kenn ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay di leen sant di leen gërëm Euh, di rafetlu taxawaayu Aliou Lo ci xarale gi digital euh, euh, Jamil Jamil Mbaye <laughs> jël kàddu gi delluwaat ko bisu Thiam daal su ko defee mu wéy ñu des émission bi dudd sëg matinal